naa admettre benn hmm. mais pour l'instant dama ne waa Pastef yi nga xamante ne même su fekkee dañu wax ne yow disu seen parti hmm. waa Pastef li leen war mooy ñoom actuellement nii seen leader nañ jàpp ne amul benn décision juridique bo xamé ni génn na Ousmane Sonko ci élection mhm. mais est-ce que est-ce que est-ce que duñu jël aussi. Euh, duñu duñu du pour pour être pour être en avance pour ñu bañ euh, surprise am benen surprise. est-ce que ah. ñom itam duñu euh, duñu duñu ñu du ñu liggéey seen seen biir en interne au cas où. parce que tok nan son leader et non mom laa la wax c'est-à-dire non xam nga passé aussi. c'est parce que il reste 5 mois. moom hein, laa mais passé aussi c'est pas un petit parti. oui oui est ce qui sur sûr mois il mooy. ce qui est sûr et certain mooy ñom schéma yeb ñu ngi travailler très bien schéma yeb schéma bo xam au cas où gars yi forcé nañ la main de la justice dem ba nga xam ne dañ ne gën nañ Ousmane Sonko ci élection yi mhm. donc le PASTEF ñom ce qui est sûr et certain le schéma y a a gens qui travailler. Mhm. mais schéma bi ñu j'appuie a l'instant que pour l'instant, instant que. moi, c'est un leader politique. Mhm. Il n'y c'est-à-dire a aucune décision de justice qui ne ni mhm. écarté l'élection. ci élection donc ça malgré les propos de ismaël Major, Fall non non non non non non Madior le ministre de la justice Major, c'est pas le juge. Major, Madior n'est pas le juge électoral. bien sûr Madior day toog di wax li ko mais xamul lu gën grave un juriste nga l' ensemble des juristes du Sénégal tourné wax la wax jël sa kàddu teg ko fële. kooku war na mën a xoolaat boppam. parce que aussi am na loo xam ne nii politique la ci yóbbu. Mhm. donc te jàpp naa ne Madior ëppul ñi nga xam ñoo prononcé wu yëpp. Mhm. ci moom li nga xam moom la wax donc moom ay waxam je crois que am na gis nañ ñu ko tontu ñoo xam ne ils sont dans le même domaine te gën leen ci xarañ. donc ñooñu tontu est-ce que ah. oui allez-y léegi nag li mhm. may wax moo di. Pastef comme ni ngeen ko waxee. Hmm. il ne doit pas dormir sur leur laurier. ñoom war nañu mën a préparer seen i schéma au cas où.

Mhm. les ma jàpp mooy y' a aucune décision de justice boo xam ne génne na ko ci maintenant le jour où loolu bés bu amoon en ce moment là peut être dinaa mën a am beneen posture pour pour mën pour mën ci waxaat mais l'autre ci mën a wax moo mhm. Ousmane quoi qu'on puisse dire. Mhm. quel que soit le candidat qui sera là l'homme c'est-à-dire du ci génn. le du génn ci ki nga xamante ne moom dañ dañ koy fal dans ce pays là. d'accord. C'est moom clair. ah oui ça c'est ça c'est clair. force et puis aussi le problème que se pose mooy moom am na dayoo ne mhm. wax ay militants koy def. et net. Ah, ça c'est clair et net mais man li que jàpp mooy aujourd'hui au moment où l'on parle. Ousmane Sonko fera partie des élections. Parce, qu'il est toujours éligible. Parce qu'il est toujours électeur, il est toujours Absolument. Fatabdo, uh-huh. sur la question. Sur, sur, sur, PASTEF, est-ce qu'on nous dit syndrome à euh, PDS Est-ce que nous avons déjà une candidature de substitution ben, Il faut nous éviter quoi. Parce que l'INU et le PDS donne à 5 mois de la présidentielle. Karim ou rien Karim et le plan A, plan B jusqu'au plan Z. Sauf que Karim, il y avait déjà une décision de justice pour Tigane. Oui,

dissoudre nañu parti on a dissous son parti il ne sera pas candidat il faut être très très optimiste seigne pour ne il sera candidat légui nak bataille politique la bu nexé Pastef ñu dem ci au bout mais tay ji xel il ne sera pas candidat mais non il faut prévoir le pire pour ne pas avoir des surprises désagréables parce que aussi mëno est un parti nga wax il est déterminant et il le sera ci élection présidentielle yi ñu jëm. Mhm. même s'il n'est pas candidat ak li nga fi jotto a liggéey yépp ak li nga am ci mbolo ak li nga am ci une jeunesse bo xamné même le fait que ya nga ci kasso bi sax tout rassemble tout rassemblement bu am ya un dégg le nom de Ousmane Sonko l'absent le plus présent aujourd'hui mhm. ba pare nga bëgg tok baña dem tout simplement parce que teg nga ko ci né mom moy sa plan A ba sa plan Z alors que tu es en face de d'un pouvoir boo xamante wala d'une coalition boo xam ne également elle est prête à tout pour que yow nga bañ a ci élection maintenant da ngay waajal sa bopp en quelque sorte waajal sa bop moy wut sa plan B pour bañ dund le même syndrome que le parti démocratique sénégalais lolu moy wax Pastef deug Mohamed leur dire qu'il faut un plan B et même man ma japp né peut-être que luñu dul wax ci kaw la mais ci souf ña nga koy liggéey té ña nga koy ngont ngonté ne ñom dinañu am plan B kan lay doon nak xamaguñu ko mais amana ñom am nañu certain non yoo nek mën nañu nek sen plan B bu ko jàngatee ci politique. Mhm. Birame soulay mi ngi fi. Bassirou Diomaye fay c'est pas une c'est pas une décision définitive il peut bénéficier d'une liberté provisoire. Guy Marius entre autres. même même même même en prison. il est électeur il est éligible. bien jusqu'à présent. même en prison il est électeur éligible même si le doyen hein. choisir. et même hein. au delà. au delà opposition une plateforme. de l'opposition où il y aura peut être le parti Pastef peut être parti mais nous, on a jël ci ben, tour c'est-à-dire nga bañ ko nga and ak mom nga bañ and ak mom eh, faiseur de roi lay don hmm. et il sera très déterminant pour d'accord ak seigne Saliou fofu ci élection présidentielle. yu ñu ah parce que y' a toute une jeunesse. Euh, wala une bonne partie de la jeunesse bo xamante ne ñu ngi ak mom et une jeunesse bu incarner l'antisystème système aussi. yoo xamante ne jàpp nañu né aujourd'hui ni affaire di depuis 1960 ak légui ñiko incarner. incarné ñom japp nañu né liñ leen di gëmlo ak liñ leen di wax bokkul ak li nga xamantene aujourd'hui mom le bëgg changement bu profond le bëgg pas changement yi amone en 2000 wala 2012 mooy changement bu profond bo xamné ben eh, benn nit buy incarné peut-être une gestion nouvelle ci walu nguur ak kuy indi lu du wuté ak li nga xamné mom moom moo fi amoon léegi nag ku koy incarné également tu peux avoir beaucoup de chance par rapport ak ñom ci seen i candidat bi ñu choisir wala ñi ànd ak ñoom ci kan la ñuy topp ci li nga xam ne moom mooy choix bi mais pour le moment je pense que Serigne Saliou le bon conseil mooy il faut que Pastef puisse chercher un plan B neexul nag xam naa oui

non waay waay waay bu ma dugal nag waay tamit waay bu ma dugal waay tamit waay bu ma dugal moom laa jàkkaarloo bu ma dugal tamit moom mu ngi toog te moom laa jàkkaarloo wax ak moom mais bu ma dugal tamit Serigne Saliou Mbacké Gueye rek maa la tuddee Serigne Saliou Mbacké Gueye nag Mbacké bi maa ko ci yokk réew mépp lay woy Saliou Mbacké Gueye c'est pour c'est pour la rédaction moo tax mu di ko def les multiples chemins xëy na da koy def pour pour yoor yoor quand même man man man je travaillerai pour Abdou Karim Sall man je travaillerai pour Abdou Karim Sall pour le chemin dañuy jël conseil voilà non allez ne reste président Ba lay nekk. sama dama koy tooñ rek mais. nga daanale. Hmm. Sénégalais yëpp nañ ne Pastef. Mhm. du toog les bras croisés. waay waay ak liggéey bu ñu def yëpp. waaye dama ne bu ñu ko liggéeyul tamit duñ toog les bras croisés. Hmm. puisque la plus de trois cent cinquante partis au Sénégal. ñu tekkiwul dara sax ne nañu ay candidat lañ mm-hmm. ci réew mi ñoo xam ne seen buntu kër sax seen i soxna sax duñu leen pare parrainé mm-hmm. tey buñu demee bay naan dañuy am fit ak sañ-sañ on a près de bis dix maintenant candidats hmm?